salaamaaleykum mbokk yi gannaaw Dakaaru ak Thiès tey nag ñi ngi fii ci Touba fas yéenee dugg ci daral gi jënd xar mu baax xool gaa yi mokkal alxuraan ñu tegal leen ko ku tontu rek ñu jox la ko incha allah. salaamaaleykum mbokk yi tey nag maa ngi fii ci Touba xool leen bu baax benn sa leen indil ci alxuraanu karim ñii di toog nii ñoom ñëpp ay xaafisul xuraan lañ léegi man ñoom kenn ku ci nekk dama koy jox kaamil su ma ko joxee kaamil damay wax ay aay yéen da ngeen koy tijji rek ku njëkk a tijji am na benn poñ ku njëkk tontu ku njëkk am ñetti poñ moo xar mi leer na incha allahu rabbi leer na yéen ñëpp yor ngeen jàpp aca bismillah xoola xad utiita sulaka yaa muusee xoola xad utiita sulaka yaa aca mu gaaw ku koy njëkk a xoola xad utiita sulaka yaa muusee anamu anamu ah aca jël ko baax moo ko génne kii aca xoola xad utiita sulaka yaa muusee macha allah aca ñu dem am na benn ah. aca بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها كي مو نجا انا انا انا انا انا wala góob ma ko de maanaam kii waaw kii moo ko gagné kii aca kii la ah, kii am deuxième non non kii moo ko kii kii teg baaraam teg baaraam bi moo tax yow rek maa woon paas bi rek teg baaraam ngir mu leer kon kii am na benn kii am na benn ñu daal di dem première bi mooy moom xar mi waaye deuxième bi dina am cinquante mille aca baada auzu billahi mina sheytaani rajim pare ngeen laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim fa in tawallaw ana mu wana gooma waaw waaw wax kii la kii moo ko kii kii la jël nga kii moo ko gan aca إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة allaa taxaafu wala taxzanu da ngay teg sa loxo inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim malaak kii moo ko njëkk a génn aca macha allah macha allah Sëriñ Saliou Seck alxuraan kii am na ñaar kii am na benn kii am na benn kon kii bu jëñëwaatee benn mooy moom xar mi ñaar ñi dañ leen di séddale cinquante mille leer na am leeru aca mbokk yi ñu dem arrière leen tuuti bu leen génneegul di ma bu baax a baax bu leen génneegul paas bi di ma naan mi ngi nii te te nga goo ci baaraam boobaa kenn lok konteel faaw nga teg sa baaraam ci aay bi ma xool ko ni la aca leer na aca baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim pare ngeen bismillahi irrahmani irrahim yaa ayuha alladina aamanu ida laqitum alladina kafaru daxfan fala tuwalluhum al adbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan li qital aw mutaxayidan ila fiatin faqad baa bi gadabin min allahi wa mawaahu jahannam bisa almasir ah acca acca anamu jeex na tax jëlal mi ngi nii kii moo gañe am na deux points am na deux waaw am na deux am na deux mi xarum deux cent mille la kii am na ñaar kii am na ñaar kii amagul na benn kon ñoom ñaar ku ci njëkk a génne kenn ki moom moom xar mi keneen ki moom cinquante mille bi leer na si njëkk a yegg ñetteel bi mooy moom xar mi incha allah ki jël deuxième am cinquante mille leer na aca ñu dem baada aoudu billahi min asheytan rajim bii moom yomb na lool tée leen dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallaamin lil abid ka da'bi aali firawna dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallaamin lil abid wala gooma dara bàyyi loolu bàyyi loolu loolu bokkul loolu bokkul loolu bokkul mënut a nekk foofu mënut a nekk foofu loolu du foofu du nekk foofu ci suuf la war a nekk man xam naa fam nekk bi paas bi ci suuf rek la nekk anam dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallaamin lil abid dafa ñëwoon daral nga ne ma ñaata nga indaale woon pour jënd xar. 60 ah 60. 60 mille la ñu woon pour jënd xar far yàlla may ko fi xaru 200 mille ngir alxuraan jël xar gi nga yóbbu jërëjëf yàlla yàlla barkeel aca yàlla yàlla barkeel ko barkeel alxuraan. ndax jamono ji